ngeen ki ngeen di waxtaanal Macky Sall aussi xam ngeen ne ay galgal la yor. waaw mais. te am na lu ngeen subir ci moom est-ce que l'homme a changé. ah man na gëw ma ne changé na <laughs> vraiment gëw ma ko waaye am nañ yaakaar am nañ yaakaar si ne bu ñu toogee ak moom waxtaan du ñu am gàcce si waxtaan bi. Mhm. ndax comme ñu bëri nee bu kenn dem parce que wóoluwuñ ko. Mhm. man li ma gëm mooy le ma Macky dina sóor ñooñu di wax ba bu subaa dina bëgg lu wax